السادسة والأربعون الحلبية xam adabiya dëgg la dana la fi jàngal dana la fi war fukki manoore ci waxi arab yoo xam ne benn jàngalu kutu benn daara ci la dem waa jaa ngi jàngali gune moo fukki gune kenn ku nekk mu am lu mu ko liggéeyloo muy liggéey yu bokkul nag waaw moom lay jàngal dégg nga rawaa solena alxaaris ibnu hammaam qaal mu ne nasaa xooxoon na biye ci man ila xalabin jëm xalab sooqun cofeel xalaba gum noon na dama namoon xalab ba mën a tumaa toog wala nim si woon xalab ba mën a tumaa toog ma dem ba watalahun ak càkkutéef lu xam ne yàlla woo kéemaan ñaal na ko min talabin ci càkkutéef ànd ak duut bëgg a dox rek sax hmm. waaye soxla bu ñorin nag hmm. bu mu ne mën na ko faa amee hmm. bu kuntu nekkoon naa yow ma idin ca boobale xafifal xaas di aji oyof ci jogga rek xasisan nafas di aji gaaw ci wéy mu ne man célibataire laa ndox dal laa aw ma dara lu may lu may diisal dem it jóg dem fa kuntu nekkoon naa yow ma idin ca boobale xafiif al aas di aji woyof ci jogga rek waaw su ma bëgg a jóg lu may xalaat ci joggi xawma ko xasiisan nafaati di aji gaaw ci wéy su ma bëggee dem fu ma lang ba demit jëfewu faaxas su ma jàpp ubata sayri waaja yu dox wa xabaxtu ma gaaw naxwaha wàllu xalab xubu xa tayri kem gaaw ak njanaaw mm. ma daal di préparé yoon bi rek mm. soobu ci walam asal dañu ma mm. mus xalaltu waxtoom wàccee rubon ha ay këram war tabaxtu tema lolleeku rabia ha lollim ufaani da jeexal alayama fan yi fii maa ci loo xam ne yas fii dana musaafara mm. alxaraama lakkatu xol mm. wa yur wi te muy màndal mm. aluwa mu mag di bi ma ma ma dee ba àgg fa nag heure bu nekk rek daal lu may bégloo wala daal rek mooy mosoon wala asal dañu ma waa nii di al ayaama fan yi fii maa ci lu xam ne yas fii dana musaafara alxaraama lëkkatu xol tatak cofeel mm-hmm. wayur wi te muy mandal aluwaama mar mm-hmm. mu xalaat waxta mu wàccee ruboha ay këram mm-hmm. wa tabaxtu tema loolay ko rabiaha loole ilaa axtara ba pegu alqalbu xol bi an waluwaay ci tatak cofeelam wasta taara dal di naaw xuraabul bay ni baaxaaju tàggaloo hmm. baax de bu xamee yi ci dara hmm. ma dem ba mel ni dëkk bi daal hmm. fi mu ni fi mu na xol ni mu ngi koy giñ daal mel ni jógee bi mu daaji féex wal marahu ak mbégte alxulum raaji neex mm. bi an ak xasida teew ma jubluwaat xims mu ne xam nga ko am jot rek mm. bi ma jógee xala mm. <coughs> dama ne damay wéyale tukki bi <coughs> damay dem ba xims ndax am naa lu ma demee te bàyyi ma ci gannaaw loo xam ne mu lay sedal abaarani dal dema xiir albaalu xel alxilbu mu raaji feer wala marahu ak mbégte al hulu mu daa ji neex mm. bi an aqsida ci mu jublu ak himsa himsa mm. li astaaba ngir naa coroon loo mm. mooy nooree bi bu xante ay ci bàkkam may naa fa jeexale fas lu sëy waa kura ak ma nattu raqaata ru eh, xantiha dox ak ñooñ bàkkam ba ak ndox ak waa dëkk ba dafa nekk jàngukaay te muallimu sibiyan hmm. dafa siwee ndox hmm. ah jàngal gàttu gune dafa bëri ko bàkkee ndox hmm. moo mu ne daal mu bëggee mu bëggee seen ndox ak ña fa nekk boo demee sëriñ yi dafa nettali ay nawaadir yu yéeme yu reeloo reeloo reelu de benn muallimu sibiyan boo xam ne dafa bindal xale bi wa iz qaala luqmaanu libnihi yaa bunayya laa taqsur ru'yaka alaa ixwatika fa yakiidu laka kaydan wa akiidu kaydan fa ma yuridu kaafirun amruhu rashdaa <laughs> <laughs> waaye yow nga tuqiru suuratan fi su yow li nga def baaxul de jaa jaawale saari mu ne aboo yuqiru ujrata saari fi sa nga naan bàyyam du fay balaa fay wéeru sori man maa mu saraay doo xam na mu ne aboo yuqiru ujrata saari fi sa dama seetlee nuwaale yu xel yu bëri daal waan bu raaj ma natt raqaat ruqandeyaat ndoxal ñoom pàkkam hmm. faasaatuma gaaw ilayha jëm ci himsa hmm. israat nañ mi kem gaaw ak biddiw hmm. seen <coughs> xadda bu xayaarloo li raj mi ngir jam mooy ngir dem xii na xayyamtu waxtu ba ma sax saxee mooy ba ma sampee sama xayma biru doomi haa ci gentam ci këram wajatu hmm. tema fekk hmm. raw ha nasimi haa bànneexu galabu nasimam hmm. lama ha gendeeku na tarfi sama gis seexam góor goo xam ne xadax bala jublu si na xariru hoo màggatam waat bala te joxe gannaaw xariru hoo ndawam moo ne ba ba xam ne fi muy sama kër dama seen genn góor goo xam ne xam naa màggat la gën a jege Eh, doxatul daal gune waaw hmm. ah, la ma xa gendeeku na hmm. tarfi sama gis hmm. say xan góor goo xam ne xadax bala jiblu si na xariir hoo mageem fekk xariir ci cosaan dégg nga mooy jikko ju ñaaw mooy nuqari deret ak mag waat bara te joxe gannaaw te xariir hoo ndawam waxen dahoo te nekk na foo moom xasaratu sibyaanin fukki gune sinwaanun ñi day mbokk mm-hmm. waxeeru sinwaanin ak ñu dul ay mbokk bu mm-hmm. ki gune laame mm-hmm. am na ci gune yoo xam ne ñoo bokk kenn moo ko jox gune yi am na ci gune yoo xam ne feneen lañ bokk fa taawaxtu ma toppee fi xasdi ci jublum fa taawaxtu ma topp fi xasdi ci jublum udaba hims hmm. borom xam-xami adabi himsa yi maintenant hmm. dikk himsa naaf ga ndax ndax li ñuy wax ci himsa hmm. fa di taalal xar kanam bi yee ci man xii na waa fay tu waxtoo mu ko dikkalee waxaya mu bi maa ci li nga xam ne xayee too nayoo naa ko ba maa géew may ma xaajo torop ma nu gën rafet ni ma ko nayoo wa ida xuyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ab arabi yu def ne ko waaw su ma nit waxee asalaamaaleykum pour ma fayee ko lu gën a rafet mu naa ko dégg ko naan asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah mu ne su ma waxee asalaamaaleykum wa rahmatullah nag pour ma fayee ko lu gën a rafet mu ne dégg ko naan waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mu ne ko waaw su ma waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mu ne ko lim la wax nga koy delloo nuyoo foofu lay am ma nuyoo mu ngi yem foofu barakaatuhu foofu lay am la wax nga koy am waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu nuyoo lay am mu ne fajalastu ma jékki ilayhi jëm ci moom hatta hatta la ndi tegu li ablu wa ngir naa nattu janaa nutqihi korteteel tuddam waa sone ak maqam kuna hum qihi dëgg-dëgg ndoxam mu ne ma toog rek ci mel fa maa lëbbee sa saxut anasaara lu may mujj sa yëf yi ci ak si ket nag la amee moom lay waxee gune yi dafa doore yëkkati ket yi mu joxañ ilaa ilaa kubri usay usay biyati jëm ci ka gën a màggee ci gune yu ndaw ya gune yu ndaw yi ma amee ki ci faree ma moom la joxe wa qaala mu ne ko ansik sa dal alam yaata wëyi alhawaati la yu de way yuqal xam nga wëyi amuñu tomb mu ni roog jëmmu jëmmu amul sakkaay sa dal mu wëy yooyu wax sax te nga waxtale ko antumaate la ba nga yéexal amul nag négligé gaaw naa wax fa jaza mu daal di sukk moom gune mm. jas wata lay seen kem sukk gaynde mm. gune daal di gàpp rek ak ñeme nit gi nag mm. waaw sada mu daal di sadd commencé wéy nag min xayri ray seen ci lu dul yéex amul benn yéexantalu nag da nga gis xasida bu dem ci fukki wéy te du am benn te itam ay dénkaane ak yi kama rek adil li usaadika hadda sila wa awridil amila wirda sama wa sarimin lahu waslal maa ba mu àgg adil na nga xadul li usaadika ñaan ñi lay añaane hadda sila yi kaa ngànnaay nit da war di bàyyi xel ëllëg moytu noon di ko ree waaw moytu gu moytu gi yëpp mooy wattande ko fu mu ba la rek hadaaya lahum fadlun alayya wa minnatun fala azhaba arrahmanu annil aadiya mu ne samay noon am na luñ ma jëriñ boo ma di jàkkoonoon benn yoon bu ma baxasu an zallati fajtanabtuha wa hum naafasuuni faktasabtul maaliya ñoo tax ma yëg ne xam na ku ma bëgg may daw ayib ñoo tax ma yëg ne am na ku ma takk wujj mm. ma bañ a sàggan di góorgóorlu nu di la laaj mm. waaw humoo baxasoo xam sallati mm. fajtanaftuha ñooy gëstu sama may teet may teet tarxeer wahum naa ko sooni ñoo ma takk wujj de gaañi ràndeeg man faktasabtul maaliya ma bàgg ay kowe dégg sell bu baax a baax. ah mooy nit buy kontaan ay sëriñ bu ci war a boole ay noonu mu ne noonu sëriñ la. dina ko wax dégg nga. waaw mm. ah, jël dëgg xam ni nga war a mel. Mm. ah di na nga xadu liwu saadi ka ñaan ñi la ñaane. Mm. haddasi laa yi ñëw ka ngànnaay. waaw li te na nga dogal alamila aji yaakaar. wi da tabax dogab tam. wala waaw li na nga rootal alamila aji yaakaar. wedda sama doog ab tam mm. képp koo xam daal yàlla def na yaakaaram menu ci yow mm. lam la yaakaaree wan ko ci dara mm. nit kuy warul nangu yaakaar jeex ci moom wasaalim te na ngay dogu allah woo ko te itam lépp la nekk rek na la jaral bul def waaye sa dara dundu àddina dafa gàtt boo ko fontoore day kasaare day jeex te doo ko yëg wasal maa ak jokkoog jonga may yi bul nangoo doon xaritu jigéen ñi ndax mënut lu mooy waamil na nga lëggéeyloo alkooma madd yi mooy gëlëm yu mag yi mm-hmm. wasumba rima ak wéy ñawi guntux yi walla wéy wéy wéy wéy soni guntux yi mooy bu may del war say gëlëm mm-hmm. nga def xare li mu bëgg a wax mooy bu may del góorgóorlu mm-hmm. ci sa yokkute nekk wasaate na ngay dox Hmm. li idraaki mahallin ngir jot barab sama boobu yëkkateeku na ay maa doon kenoon hmm. laa bul toog li diraayal miraa hmm. ngir bu boobee kare sigara rek da nga yëkkat da nga yëngatu ci lu xam ne ci la ni nekk ci la ni nekk ci la nit ki mën a dëgg jëriñ keneen waaye loo xam sa bànneexu bopp la rek loolu bu ko def muy dayoo nit ku tekki njëriñam du yem ci jëmmam waaw nañ ko tekki njëriñam du yem ci jëmmam mm. waaw wasaan na ngay dox mm. li idraaki mahallin ngir jot barab sama boobu yëkkate ko na imaadoo kenn mm. eh, la bul dox rek li diraayil mira ngir bu boobu mbégte rek sigara rek wallahi giñ naa ci yàlla yaan xaside ba mu de càng xasuut naan ko neex nii rek loolu taxul kenn raw kenn hmm. wala maradul xam de def sàkku waaye cant raa da yeroo du gubu hmm. hmm. wala maradul xam de def gubu waaye cant mooy sàkku waaye cant nde jongama radaa ju daa ji butaaye wala jongama ju fees rek kooku taxul kenn raw kenn loolu ku doyloo wul lu doy rek kii doyloo lu doyul rek moo ko dem muy bi xam dina ay fi maskanatun loolu rek la ndax li koy xamal mooy ki gën a ñàkk yar ci nit ñi mën naa am lii waaw ki gën a ñàkk diina ci nit ñi mën naa am lii ki gën a réer ci nit ñi mën naa am lii kon ngi lii du dayoo bi gannaaw lu ñu bos lu ñu bus bu man ci am kon ngi du dayoo bi te ah ki gën a gudd ci nit ñi mën naa am jigéen jum nobanteel mm. gannaaw ki gën a tardé mën na koo am nag mm. wala xamal ne du dayo mm. du dayo wallahi maa de càng xas wutte laa déggoo sàngara rek wala mara du laam di dët gu waaye cant lu dun de mara daa juraaji butaye waa an dana ma yéemu li hurrin ñaalam gor waaseen bu daa jiyaat sadruhu dannam waamu woo te yitteem maa mooy li nga xam ne sarra bég loo na mu ala sola ñooñ jiw man ki ma doy mooy borom xol bu yaatu bi nga xam ne lim bëgg mu la ku baax di bëgg ku xam ne mawrido rootuwaayam xol aji neex la li alihi ñaal way laajam doon koo xam ne boo jaxasoog moom lenn rek moo lay métti xanaa li nga yéex xamante ak moom wa maalu halalam mutahun lu ñu sànni la maale masalu fekk laaj nañ fekk laaj nañu nekk koo xam ne alalam fekk borom borom soxlaa koy ba borom soxlaa koy ba wa maalu halalam mutahun lu ñu sànni la mooy lu ñu joxe la masalu fekk laaj nañ fekk laaj nañu <coughs> mu doon ku xam ne maa ak maa dégguloo du dégguloo mukk alaame la aji yaakaara daf delloo yaakaar ko mu tas sa yaakaar du ko def wala maata la woo te itam du ko yéexal wala da la dimbale négligé la ba nga ba mu sox du ko def laa tax di sonna bi matalin waja arifatin fal birru yax di soo matlun wala yar mais loolu du ko def wal matlu yàggal ba négligé nit te lan ko war a taxaw loolu lu mun mbon la suraa bu daa ji wóor mu ne façon mbon la gis nga bu baax a mm. nit warul amee jikkoy teen bu gudd rek bala ngaa jëriñu sonn ak dagg ko mm. nit warul mel noonu mm. bala ngaa jëriñ nit rek da nga ko awale fii awale ko fële awale ko fële loolu baaxul nit warul mel ne teen bu gudd a gudd xam ne bala ngaa am doole dagg goj ba sonn ñoo di ba sonn loolu nit waru ko mel wala attend mosul topp allah woo ko la maa daa wax toom woote ko xam ne kenn du ko dugal ci wala kaza musul hoddee raaxanteen xalawa ñaal ko ka darahin kaasa sànga dama loxo mu sëngëb kaasa sànga wala ataa musul topp àllawa fo lama daa waxtu wa fo hoddee wala kaza musul hoddee raaxanteen xalawa ñaal ko ka darahin kaasa sànga mu doon ko xam ne sabu wada woo sangal na ko islaahu woo xéwénal gim sirrahu biir xelam baatinam mm. waranoo ak jaaji gi mu jaaji awaahu mm. awaahu bànneexi bakkanam mm. watima ak jaaji gi mu jaagi ji yëkkati gis gis bu doon nga wax ne li ko tax a do sax sang mooy sellal la xol gi ne ci moom ak tegu gi mu tegi ci dëgg de xeexawa nafsi ak doyloo gi mu doyloo li moom sawadahoo sangal na ko islaahu xéwé na la sirrahu biir biir xolam warana woo ak jaajam warana woo ak jaajam mm. awaahu bànneexu bakkanam mm. wattimaa ak yëkkatewu gisam mm. waxasala te amal almal a tagg la wa ñaal ko xel mu woo xam-xamam maa muhira feeg canees na alooru way fatt mu war a siyaa kem way canag way wéri mu doon ko xam ne duñ ci ko lii la xale bi wax fa qaala dal di gi la wa ñaal gune gi ah santa rafetal nga yaa bu dayir mooy yow weer yaa rasa dayir dayru mooy jaamukaayu labbe rasa dayri mooy ka ko seete xëy na lu mu demoon gune mu tudd rasa dayir ñu jàng loolu waaw ah, comme lëggee loolu boo rafetalee rek mm. dafa am nu mu lay xawaatu na waatu mm. dañoo mel ni nit ñu amul takkaay mm. xale bi indi na ko kañ na ko mm. summa qaala topp mu wax li tilmihi ñaal aji topp mu wax kaja topp mu wax kaja topp al mustabihi kuraaji nidu bisin wihi mbokk xam naa lamaani lamaani du sax mooy ñoo bokk ñoo bokk jom ñaar ah ki gën a mage daal dina dale ka ca topp ci mage ca la topp ca la la ca li muy ni sax mooy ñoo bokk ni do bisin wi ci mbokk mu ne ko nu jege sil yaa nu wayratu yow jafara si xëy na xale bi dafa tuuti te bari te bari te bari solo xam nga ci seen ndaw yi duñu waaye kenn tuuti waaw hmm. ah, du ñu wooyee kenn turam kenn ku nekk dana am tur wuñ lay bàkkee rek hmm. loolu la xam naa hmm. yaa xamara du wayra yow weeru kër sa xëy na lim rafet a tax danaa mu dal de jege moom ki ñu woo walam yartabaata te yow duwul ba muy wax lii rek xale bi dal de jege si taxal la ko mu wàcc minu ci moom maqaadal muaatara wàccu mm. waayu ku ñuy joxante mm. mu dikk ba des ci teggam wa qaala mu wax lawu mu ne ko mm. ujlu feeñalal alab yaata wëyyi alaara isa yemel ni seet xam nga seet day bëri ay xeeti takkaay wëy bi dafa bëri tomb wëy dafa fees la tomb sedday bu lay xëy te kay feeñalal alawiyaat muy alxara isa ya mel ni seet wayen lam yëppoon na doonte nekkuñu nafa isa de way wëlluure xam nga kële da koo tëriloo kii da koo binduloo fa bara mu dal de xett moom gune ga mm. alqalama xalima gi waqat ta moo dagg xalimba gi mm. mu xett xalimba gi ba dagg mm. su ma tajara topp mu gàcci mm. mooy mu pengoo mu gàcci allawa halawa ji waxatta mu bind lii ñëw nii xale bi xett xalimbaam ba dagg gàcci halawa am commencé bind lii di ñëw yëpp tomb mu ne partenaire bi final nama. te jën ni ndaw suñu naan te jën nii. fa jar na nag nii topp mu mu mu jinneel ma mu dof looma. te na sama la amal la. dem final dof looma. bi te jën ni ci njeegat bi te jën ni ci njeegat. <coughs> yëf tanu loolu dana mu fànn. riba te jën nii ci gannaaw ak réeru. façon yi njeegatam yi mm. ak yëg boppam gi mm. ci la ma finnaale mm. ba doon ko <coughs> fatana ni finnaal nama fa janna nat nii topp mujj ndeel ma tajan ni ndaw suñu naan tajan nii bi tajan niin ci njeega yëpp tan loolu dana mu fànnu riba tajan nii ci gannaaw yi tooñ nawi tooñ saafat nii dugg na sama biir xol duggee na sama saxaaf bi jaf ni rab yin ci mbasam mbasam koj biir xa déedéen bu daa ji gëmm xoolam boobu muy lamsal mel ni koj buy gëmm ci la duggee ci sama saxaaf jin ku daa yaqtadi kooku dana mu sàkku hmm. taxa yuuta jëf nii gëm ak sama mbatu bët hmm. rasu yen nii di keena ma hmm. bis yéen a ni ci ñaari taar te muy kodda yu garanti yi ak takkaay yu foore rasu yen nii di keena ma bis yéen a ni ci ñaari taar sofan nii mu ñeeri ma mooy mu ngi ci sama jëmm mm. bisi yéen ci njeegal mm. ci melo wu rafet mm. woo xam ne yëpp si foofu danañu dana mu melk mooy dana taaru bay na tasanni ci diggante wàññeeku danga ma dikkal ak taar ya ak takkaay ya ak melaw njeegat la fatala naytu ma jortu fatala naytu ma jortu tëj tam ji nii dana ma tànn fata ji siini mu fayee ma bi nafsin ci dugg yaswi boog dana saafara mm. fo xuyiba mm. sooyelees mm. zanni sama njot bi ma dikkalee ak taar bi dama yaakaaroon ne daa dégg ci mu kàddu ko neex wante yaakaar ju yàqu laa je jëlee dama yaakaaroon daa dégg ci moom kàddu ko neex wante yaakaar ju yàqu laa je jëlee rek lakinnahaa xillatun qasiitun min damihaa faj'un walun wa ihlaafun wa tabdiilun sannaytu jort woon naa ne tajtabiinii dana ma tànn fa tajisiinii mu fayee ma bi nafsin ci tudd yaswi goog dana mu saabara fa xuyi ba sooyalee nan nii sama jort sabat saxal na fii yetiman xissa mm. jay bin njarak poos mooy njarak biir xol mm. ak saahir bi lu mu wan wantaar xalaat mm. bi mooy xorma rek ak sabata saxal na fii yetiman xissa jay bin xurujëg biir bi kasine xabisin ci rafetal lubam yëpp xii loolu dana mu sàkku waaw ci rafet na nag comme man. Mm, yaa suy ko yéen kooku kooku dana mu sàkku. te dafa yaa deexali. Mm. saafara bu mu bañeel. Mm. léegi nag daf may xam ne ci saaxir ci biir. man daa ànd ak bëggeel. dama wan ci saaxir. lu xam ne dafay bëgg daal bañeel ci saafara. bi tasine xabiisin ci rafet na ku bon. yaa bëgg kooku dana mu sàkku. te dafa yaa deexali. sori mbañeel fa nasa sori na tëm na fi tajannu bi ci sama teet buur na sori ma fa sanat nii mu wëññi ma mooy mu bàyyi ma bi na suy jën ci jooy justi dana mu jàqaloo bi fannin ci fànn fa fannin topp fànn lii la ko bind loo lii la ko nekk bind wala maa nadara ba xoole asixu góor gi mm. ila maa jëm ci li nga xam ne xabbale woo ngémmeñal na ko bi mm. góor gi xoolee li xale bi bind mm. eh, wata safaa te mu setantal maa li nga xam ne sabare woo bind na ko bi mu setantalee li bind xaala wax na lëxoo ñaal ko def ne ko boori ka yàlla na barkeeleel la fii mm. ka ci min talaa doomu ko biir mm. xale bu rafet nga yal na yàlla barkeel mm. kama buuri ka ni ki barkeel lay fii laa wala ni ñu barkeelee laa wala mooy garabu saytoon min sajaratin mubarakatin saytoonatin la sharqiyatin wala garbiyatin moo tax laa wala garab la goo xam ne hmm. juróom-ñaar fukki yonent ñaar nañ ci hmm. te yonent yi ñaar suñ baay Ibrahim ci la bokk hmm. yonent yàlla Muhammad ci la bokk kon garab gu barke barke la juróom-ñaar fukki yonent ñaar nañ ci garab gi te juróom-ñaar fukki yonent yooyu suñ baay Ibrahim ci la bokk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk xëy na loolu moo tax ñu taamu di jaam kurur boobu xëy na loolu la kama boori ka ni ki barkele fe mm. fii laa wala mm. suma dafa topp mu woote haat mu mm. woote haat mu ne uqrub jegesil aywa jegesil yaa quturub man la waaye gune gi de as ndaaba la su xam ne dafa mën a dox dina ko baax a baax mën a dox la jege si faqtaraba dal di jege si minu ci moom fatan gune goo xam ne hmm. yaa kii dana mu nidu hmm. najma dujetin bidiwu landam hmm. <coughs> aw timsaala dujetin wala misaalam netaal benn xale bu rafet jege si kii dañ koy bi ndax day jàngale bind di jàngale jàng am bind ak jàng ñoo ne am bind mooy mottali ak taalibe moo tax nit boo koy jàngal boo jàngalee jàng nu war jàngalee bind moo tax day jàngaloo ñenn te bindloo ñenn waaw wala woon jéem rek dana jàngalu hmm. eh, baaxin na baax na ñoo xam ne mbind mooy mottali ak taalibe mu ne ko fa xaalam wax la woo mu ne bindal alaf yaa sa wëy alaf yaa fa ñaray mbokk am mooy ñoo xam ne dañoo bokk benn yaay te bokkuñu benn baay mm. ñun ñooy am na alaf yaa dafa nekk wéy yoo xam ne ñaari ah dafa dafa nekk wéy yoo xam ne da ngay indi baat buñ tombut indi baat bu fees dell ak tomb wéyi haat wa tajannab te na nga teet al xilaafa wuti mu ne ko yooyu nga xam ne am na wal axyaaf la laa bëgg nga bindal ma al axyaaf mooy ñoo xam ne dañoo bokk benn yaay te faaxada mu jàpp moom gune gi alxalama xalima gi wara xamoon mu bind wëy yi di ñëw wasetloo wëy bi da indi xaraf mu baat mu fees ak i tomb indi xar beneen du am tomb mu ne ismah fa bëssu samaahi zeynum wala tuxib amilan tadayyab wala tujis radda si sualin تتفنن عن في السؤال خفا ولا تظن الدهور تبغي تبقي مال ضنين ولو تقصر واعلم فجهل الكرام يغدي وسترهم في العطاء نغنى ولا تهن عاد استبداد wala tabxi ma tasayyar mu ne isma an na ngay tabe na nga fonk jëriñee fabasu mm. samaahi yulli tabe mm. yaatal ak tabe mm. kooku sëy nun taar la ca ka koy def wala tuxi balde sooyal balde pertaal amilan aji yaakaar tadayafu ku gane sina walla wàcc sina te itam ku yaakaaram henu si ci yow wattandegul tas yaakaaram te yàlla mi ko nëbb sag manqué nan mm. la yaakaaram ci yow mm. war a gis mbaaxam mm. suturaal gëm nga suturaal waa lim la sant jikki yi nga jëm ci dara yàlla mi ko nëbb sag manqué ay na la yaakaaram ci yow waaw moom nga war a sant ci suturaal gëm nga ci dara waxodda min arrahmani fadalan wa min natan lil orfi وعد من الرحمن فضلا ومنة عليك إذا ما جاء للعرف طالب وعد من الرحمن فضلا ومنة عليك إذا ما جاء للعرف طالب ولا تحب السؤال عاملا أجياك تضيف كوغانيسين كوغانيسين واتشين ولا تجيز بل دغنا arada fi sualin delloo borom ak laaj mm. fanna na moo xam fannu na mm. mooy bëri na façon yi laajin mm. am xafafa wala xoyofal na fi sual ci laaj ki ñëw tawatal la soxla daal moo xam wax na wax joo bëri ba xamoo noo koo def wala wax joo gàtt la wax yow dangaa def li rafet ah dangaa def li rafet ci yow dégg nga inna atidari ila man jaa yasaluni ma laysa indiya min ihdal musibati mu ne ñi laaj ma fekk xaw ma ma ne xaw ma loo sa xeetu musiba la na ñàkk a jëriñ ko la yaakaar la wala ta doon na bul jortu duhura jamono yi tubuqi ñuy dasal maalo dañu wala taqashafa doon te ñëgasal na dund xalam bu demam jotee <coughs> dana dem benn mu demee ci wala mu demee jëndale kon li nga xam rafet na mu dugg ci soo yeboo rek nga dugal ndax bañ ko jaa wala doon na bul jortu ak duura jamono yi tubuqi maa sadda ni min halali ku nay mm-hmm. wala taqassara doonte ñëgasal na dundam mm-hmm. wala waxlam te na lewet mm-hmm. na nga doon ku lewet ku xelu ku xam fu ñoo jaat nit wa jaxnul kiraam mbatam mbatam way tedd yi yuux di dana mu dumuyu fu fekk kërim rek ku xattan lu bëri lay doon mën a muñ sadruhum seen dënn mm-hmm. ñoom kiraam yi naf mm-hmm. nafum lu yaatu la filanta mm-hmm. yi ci joxe kërim rek dafay yaatu dënn ak pas-pasu wala taxun bal de huruj haada si bi daa din kol rek borom cofeel sam tin ku daa ji sax boo diggaale ko sérieux ku xam ne waxi démb mooy waxi tayam mm. ka nga xamoon démb bu ngeen dajee tey mooy do moom lay doxe mm. kooku del wattandeku muy gis yow sérieux sérieux rek mm. del wattandeku wuruj wala taxun bal di huruj ahada si bi daa din kóol rek borom sattin ku daa ji sax wala taxi te bul sàkku maa li nga xam ne tasa yafu na ko mooy lim ga lim lim lim lim te itam nit ki gannaaw daal borom muru ala ngeen di daal soo amee lu mu seexlu daal loolee bu ko defee <coughs> lii la wax lahu góor gi wax gone gi ne ko laa asallat yàlla boo laagi yadaaka sa loxo yi wala kallat yàlla boo lot mu daaka say paaka yow de na sa man man yokku yàlla bul tël su ma naa daa topp xoote haat mu dellu xoote ne yaa xasam-sam baat la bu ñuy wax nit su fekkee duy dellu gannaaw nit jàmbaar xëy na xale bi fa jàmbaar du yaa xetra man sam yow gàtt man sam man sam ko amee woon bu ko tooñ ca gàtt ga xare bu rëy rëy juddoo ja mm. alal ju bëree bëri yàqu ja bakkan yu bëri faat ja ñi mm. wax as am min hetri man sam mm. boo xamee fa ngay dul aada boo ci naxwu ci ci ci mun jit masal bi ko gis la ko waraloon yaakaar na xëy na xale bi xëy na daal dafa doon ku bëri mbir daal walla mbax xëyu ko xulaamun mm. gune mm. aga gune xëydi ko mm. ka durrati xawaasin bu mel ni wurus kusagundi wurusu kusagundi gune gu rafet la mel ni wurus aw ju duri xannaasin walla cëllati njaaxaali rabbaako walla ko biir rabbaka xaala <coughs> mu ne ko fa mu wax la woo mu ko ukutub bindal alam yaata wëyi almata ima yi day séex mm-hmm. wala takunte bul nekk nag mm-hmm. minal masa im de bokk ci ñu gaafal mm-hmm. dafa nekk wëy yoo xam ne ñaari baat yoo dendale soo tombagun maasagu la kaadari baat yi ñooy ni doo waaye soo maasee ñu xaajaloo soo tombee itam ñu waaye ñaari baat yu denn nag cadre yi ñooy fi tombago la daal masago duñu xaajoo loolu bi na muyu tanaa wala mu jotle ko xam nga xeetu jinaas la alqalama xalimba ga al musaqafa gëre guñu xeet gëre guñ defar mu jël xalimba wa kataba mu bind walam yatawaqaf te taxaw mu bind amul taxawaalu له بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد جند جندها جيدها وظرف وطرف ناعس تاعس بحد يهد بمعرف suy nag rafetalees na sëy na mm. ñaari yaxi baari ñooy niroo mm. fekk tomba goo maas ko mm. waaye boo tombee nag walla nga maas xajaloo dikk xajaloo wetalee nañ ko bi xaddin ci taxawaay mm. boo xam ne yëquddu dafay dagg mm. boo xoolee taxawaayam bi day dagg sa xol bi mm. bi xaddin yëquddu ñaari yaxi baari ñooy niroo tombagu la maasagu la waaye boo tombee walla nga maas rek xaajaloo watalaahu topp na nag taxawaay boobule waye laahu xoonaa xalakum Hmm. Hmm. Hmm. topp na ko naa dun fan la rek yahuddu boobu dana dagg xel yi dana toj xel yi watala watalaahu waylaahu yaxi baa di ñoo niroo soo tombee walla nga maas nag ñoo xaajalo al nahdu ak yahuddu kadri baa di ñoo niroo boo nga maas ñoo xaajalo jundoo a lelam jiidoo a mooy loosam loqam gi daal loqam gu rafet gi ci laa daanee góor ñi mooy mm. soldaar yi way xare sunduha jiit la wa darfun ak ñaw mm. wa tarfun ak gis mm. darf tarfun naaxisun gis bu daa ji gëmmeentu taaxisun bu daa ji xaalat gis boo xam ne dangaa xam ne borom dara ko ko naaxisun taaxis bi haddin néew ka yow doo dana mu la dana waaw day demee noo xam ne manière bari mu yëpp xiima maan dégg nga xadru ha xam nga science um nit lañ ko bind li ma xew dégg xasidaam bu bëri tafsir boobu xam mm. ne mañari baat lay xëpp ci wàllu maana mm. waaw mm. qadruha darajaam xasaha reyluna wataaha reyluna mooy bég na ba gëlëm wa baaxat te mu dam taahat baax qadruha qadruha waxtadat yàgg tina waxtadat te mu xëye bi xaddin ci lex yaxut bu ko dana mu dagg dana sonal nit dina ko baax waxtadat bi xaddin ci lex yaxut bu ko dana xar xol faraxan nii tàggoon ak man mu foog looma xanii ba ala wasatat sori hmm. wasatat te mu song yaxi hmm. baa di ñoo ni doo hmm. topp yokk topp tasaare topp feeñ su ma topp feeñ su ma ak cofeel wajidun ak fadanat fadanat mu jege fudiyat cal nañ ko def waxannat mu bind waxayat mu nëyu moo laban ku ñu merloo moo fiyan ku daaji du mooyu yawaddu ku dana sopp yawaddu dem na ku sopp parce loo mañari baali ni mu toll fasal bi tollu wa ci wàllu maanaam sabi xa dal de xaral mm. aseexu góor gi mm. yata amal defetantal mm. maa li nga xam ne satarahu bind na ko yu qallibu te muy jàllar bi fii ci li gune gi bind nasarahu gisam ndax itam nag nit ki boo ko binduloo su indee lim bind danga koy falam mastahsana ba mu rafet loo xattahu mbindam wastasaha te mu wérlu dabtahu takkam ba nga xamee ne gis na ne gune rafet na mokkal liñ ko bind loo woon bind wax na loo ñaal gune gi su ne ko laa salla yàlla bu wala foog bi sa yàlla bu bon loos sa xeñ yàlla bu fekk yow mi nañ topp beneen bi topp hmm. beneen bi topp dañuy jàng hmm. summa mu hoo hmm. bi fatam ci gune fattaanin gay finnaa laa koon yusfiru koog dana mu feeñal xanaa saari bustaanin jaay tóor tóori tool toolu dëkk mu woo beneen xale bu xam ne bu taaru la hmm. soo ko gisee daal fleur ci toolu dër la lay def waaye hmm. yu mu feeñal xanaa hmm. bu sànni jaay tóortóor yi tooli dër mu wax la wu mu ne ko ansi saddal al baytayni ñaari wëy al mutarrafayni yadi ñu njamal ñaari wëy yu rafet yi almustabihi tarafayni ñaari way yëre way niru ñaari kat ñu nekk ñaari way yoo xam ne way woo dem bopp ak cat li ñooy nitoo almustabihi tarafayni ñëre way nitoo ci ñaari pet alladayni ñaari way yi nga xam ne askat noppiloo nañu kulla nafisin bépp aji tudd wa naa te ñu hóolu ay yuhassasa bu dëgëraleef leen bis alifin caaji ñetteel léegi dama bëgg nga jàngal ma ñaari woy yi nga xam ne yu taru la woy bu mu ci mën a doon bopp bi ak lu ñooni doo mu nekk ñaari woy yoo xam ne kenn du leen ñetteel la loolu la a gune gi daal de wax mm. ñaal góor gi jàngalekat bi mm. ne ko isma déggal laa mm. wuqere yàlla bu diir yàlla bu diisalee ba samoo ka sa dégg dagg déggal yàlla bal mos a naqadi nopp am waqaru li ma yàlla bul mos a naqadi nopp laa wuqere bu diisalee ba samoo ka sa dégg wala husimat yàlla bu dàqee fa hmm. jamu ka sa mbooloo kuy faral yow yàlla nay dëgër waxtu wu ne hmm. waam soda mu dal di sadd moom gune gi hmm. tala bosin ci lu dul sax wala tara yusin du càggeen yéex gune gi commencé woy amul nag ay tulu dara daaw rek la def mu ne sim simatan tax sunu asaruha waskur liman ata walaw simsima wal makru mahma staata la tatihi li taxtani sudada wal makruma simsima simsima makruma makruma way fi mu dalee ak fi mu yem noyem sim nanga mandargaal simatan mandargaal mu kam ne tax sunu dana rafet asaaruha ay jeexitam saa sooy def da ngay def loo xam ne bu net li rafet bu wéyee jeexit ja rafet waskurte na ngay sant li man ñaar képp koo xam ne ata ah, jox na mu la daal ku la jox dara dee ko sant mm. nit day sant mm. ñàkk a gore adi la walaw simsim atam donte benn pepp simsim la la jox wax dëgg mm, mm. donte benn pepp sëb la la jox it mm. man ko sax wal magru tappale fexe tappale mag mastaata loo ko man man laa taati yi ba ko di dikkal tappale daal loo ko man man ba koy def wal magru pexe tappale ma mastaatal loo ko man man laa taati di digal ba koy def li tax tani yéen na nga kotti ngir na nga kotti asuuda de càng wan magrumata ak tiranga loolu musal ci der bu yàqu moo lay musal ci der gannaaw dafa am hariri bi mu waxee ne askata kulla nafisin wa amina ay yohan sasa bi saalifin toog nañ dit bu yàgg yàgg gisuñ ko ko ñetteel dem nañ ba ca kanam nag gis nañ ku leen ñetteel ki leen ñetteel kenn la ci udabaay andalusi dama xamatul ibnu rasiq wala ibnu saraf alxayrawaani kenn la ci udabaay yooyu sabab la itam dafa am ak nit ne du jullit de wax moom ne ko yéen alquran lii benn bindkat man da génne lu ko war leen ko def tegtal ci ne ci yàlla la baxoo loolu warul Muhammad sallallahu alayhi wa fabriquer ko bopp rek ci ñawam suba kenn du kenn man loolu loolu warul tey mu ne ko parce que hmm. man jàng naa lu bëri ci adabul arabi Hariri am na ci maqaama ñaari way yu mu wax hmm. ne askata kulla nafisin hmm. wa amina ay yuassasa bi salisin te udabayi ñetteeluñu ko te moom waxul ne yàlla ko wax lo hmm. waxul ne nabiyul waxul ne hmm. waliyu la hmm. sempal bindkat rek la kon tumarankewul téere bi doonte kenn mën na indi lu mel ni moom ki ngeen wax ne moom moom moom euh, mooy seen yonent defaral ko boppam rek waaye mu ne nag xam naa foog na ne gañe na nag bi mu waxee loolu lu mu wax rek mu toxal gannaaw bi sama borom hubbi ma moom man koo ñetteel waaye su ma ne ko maa ko ñetteel du ko nangu al muasara tam na wal munasara andalee dafa am lu mu ñetteel ma ne ko yow nag nee nga te def nga taxasus mooy jàng nga bu baax ci adabul arabi waaye def naa daal sa yaatal gëstu des na ci nga ne wayu hariri bi mu mm. ne ko li ma la wax rek mm. adab ñetti ay adabul am adabul itaat adabul naadam moo ci topp mm. gisuma kenn ñetteel ko adabul jaahil adabul islami adabul amawi hmm. adabul rasidi hmm. adabul irita hmm. adabul naaba lu mu kenn man gis naa bu ko ñetteel de boo demee nga jàngat nan ko ko wax na ko maa ko yëpp mu ne ko yow daal defe naa ne daal des na boo demee nga jàngat mu ne ko boo gisee bu ko ñetteel wan ma wéy mu ne ko loolu kay yomb na mu ne ko li ko ñetteel mooy wal mahra mahral xóori wa tuqaa بادر بيل بادر بيل كبرة والمهرمة والمهرمة والمهرمة والمهر can mm. mahral huuri can mahral huuri can gaa moom can ak huuru nayni la mm. wa tam atuqa mooy ragal yàlla mm. istiqaal moo ci nekk wal mahra mahral huuri wa tuqa baadir bihil kabrat mm-hmm. jëkkalante nag moom màgga mm-hmm. wal mahramata ak màgg mm-hmm. baadir bihil kabrat wal mahrama wal mahrama mahrama mu ne yow nii da nga ko gisagul waaye gars yi nettal nañ ko ne ma xam ma gañe ne gañe naa ko rek mujj noppi dem waaw mu xam ne gañe naa bu ñetteel mm-hmm. ay kër gi sabab la ànd ak tuuti gonnal mi moo ji sax mm-hmm. taaw na fi diir bu yàgg kenn ñetteelu ko mu mm-hmm. <laughs> ji bu yàgg kenn ñetteelu ko baax na foofu والمهرمة مد الهرم والمهرمة lool mooy nit koo xam ne dafa gaaw torop mm. xale bu ñax la ku gaaw a gaaw mm. ne muy gëlëm bu bëggee gaanu waay mm. lu muy njëkk a sànni def ko coret noonu loolu mooy soo loolu xëy na ji cosaan ci la bàyyee ko mais loolu mooy defin woo mooy saxla la ci la bàyyee ko yaa ab xulool yow borom xulool xulool xeet la ci sàcc yow i borom xuruj dina ko baax a baax parce que jëmmaa nga maa kaana li nabiyin ay yoxal la ay jàng ci alquran su man haadaa topp mu waat haat moom góor gi de ne aw de leeralal yaa yaasin xëy na xale bi noonu la maa li nga xam ne yuskilu dana lënt min dawaati baat yi xam ne siin lañ leen war a bindee muhmala mm. te mën a nax ñenn ñi mm. moom laa bëgg nga leeral mm. xale bi mu woo loolu la ko wax fanaada gune ga buur walam yetta an na te yéexul gune gi buur amul def ndànk amul yéexantalu waan sadda mu sadda moom gune gi bi sawtin ci baat aam na bu daa ji neexantal mm. muy wéyee ci baat bu neex mm. mu ne niqsu dawaati mm. warusul kappi musbatatun sinahuma in huma xutaaw in burisa wa hakada sinu fi qarbin wa basiqatin wasabi walbaxsi waqsir waqtabis qabasa وفي تقصصت بالليل الكلام وفي مسيطر وسموس وطرب جرسا وفي قريص وبرد قارس فخذ ثواب مني وكن للعلم مقتبسا mu ne niqu si dawaati baatam niqu dawaati biri biri coskal daha baatal niq bile wa rasxul kaffi ak rusxu bii fi takku njara takku njara tënk ñaari baat yile musbatatun lu ñu saxal la siinahuma seen ñaari siin in huma bu bindee fee leen ñoom ñaar nga fi alef taa wa in turisa ak bu jàngee fat mu ne ni niqasu bii dafa ne coskaal daal sàllaw siin rek lañ war a bindee mm. baatam rasku bii fi ne takku mm. siin rek la war a doon mm. moom lañ ko war a bind moom lañ ko war a jàng waa kada naka noonu ak siinu siin fii xas bin ci baatu xas bu mooy tàndarma joo wow baat bii siin la lañ koy bindee moom lañ koy jàngee itam basiqatin ak basiqa mooy garab goo gudd tàndarma goo gudd nax la basiqatin moom itam siin a ci ne de moom lañ caa bind e moom lañ caa jàng safi ak safi bi bi rom rek suuf rek moo dem lañ koy bindee moom koy jàngee wal baxsi ak baxsi bi biri njëggu manki bi samanin baxsi wa qasir ak ya qasir bi biri notal xasu teel ak lu ca bawoo waxta bis na nga juumu xabasan juum ak ixtalasa ak lu ca xare ci siin lañ koy bindee ak ci xasas bi firi déglu naa mm. bi layli ci guddi mm. alkalaamu wax ji mm. dégg baat ci guddi taxaw di ko déglu déglu settantal moo tudd taqasus taqasasa bii fii lañuy koy bindee mooy raj naa wa fi musay terin ak musay ter bii firi aji commandé aji hélim aji dominé nga dem siin lañ koy bindee wa samuusin ak samuus bii firi façon faraw siinam mm. gu mujj googu siin mm. rek lañ koy bindee moom lañ koy jàngee itam mm. watta xis na nga jàpp jarasan jóolooli mooy xeet walla walla baatu jaras loolu la dana am ci bunte église yi bunte école yu mag yi yëpp siin boobu lañ koy bindee fi xarisin ak ci xaris bii firi aji way moom itam siin lañ koy bindee de wa bardin ak sedd xarisin bu daaje xar ci tànn xaris boobu de salaw siin lañ koy bindee dégg nga hmm. yëpp siin lañ koy bindee faqul jàppal asawaabu njub min nii ci man lii ma la wax sawaab la jàpp ji kun te nga nekk muqtabisan gaa ji juumu mi xam-xam fa qaala muallim bi dal di wax góor gi wax la wa ñaal gune gi ne ko ahsanta rafetal nga yaa nu xayis mooy yokk bari yëngatu mooy yëngatu ci barabam dégg nga xëy na gune gi dafa ndawe xaw a sob daal yaa san naa jatal mooy xare san ji mooy poo li ñuy peese waaye san naa mooy kuy nekk ci xare da wéyal xare kan leen ñemeloo ak di leen sawarloo hmm. ku mel ni alansa may mu nu xëytin changer hmm. la boo xam ne daan nañ ko wax loolu hmm. summa qaala topp mu waxaat moom muallim bi moom góor gi ne sibbuural yaa am baga turu gaynde yi la turu gaynde la wa bayin nga biral assaadaati saadi almultabisa yu da way lënt mu mm. delloo xaa keneen mm. na ko saadi nga xam ne mën naa lënt ñeen ñi mm. moom laa bëgg nga leer xay ma jobal ko wasa ba mu di buur moom gone gi wasa ba wasa ba sab siblin buur ak xalom musaarin kër ku ñu buurloo ku ñu jekk nekk de ku ñu buurloo hmm. sumaan sada topp mu sadd hmm. min xeyri xasaarin ci lul benn fakkatalu hmm. mu tàmbali way amul benn yaxantalu mu ne bi faadi yuktabu qad tabastu darahiman bi anamili waasix li tastami al xabar wa basaqtu absuqu والسماع والسنجد والقص وهو الصبر والتص الأثر وبحثت مهلته وهذه فرصة قد أعادت قد أعادت منه الفريسة للخوى وقصرت هندا أي هبست وقدنا فصح النصارى وعيد منتظر وقرأت والخمر خالصة إذا حدث اللسان وكل هذا مستطر mu ne bisaadi ci saat yuktabu la defi bindee kat xabastu mooy sompeena dara himan ay dërëm bi anaami nii ci samay foli baaraam nga bi nii ci say baatu xabasa boobu di firi samp na mm. mm. sin mm. bu sàpp ñu koy firi waase xam na nga xerewlu di tastamia ngir na nga dégg baatu xabara solo si baatu asaaxa xerewlu na ak lu ja xare sàpp lañ koy bindee ak basaqtu tëfli naa abu suqu dana tëfli bu saap ak lu ja xare sàpp lañ koy bindee wa simaaxu ak simaa ibiri loolu ñaari nopp simaaxu nay ni moom itam saat lay koy bindee wa sanjatun ak sanja ibiri too mooy teeteekaay moom itam saat lay koy bindee wal qasu ak baatam qasu saat lay koy bindee wooma baatu qasu ak sadru mooy gën ak iqtasa jàngat na mu al asara jeexit ba mm. mooy li ñoo xissa mm. te la ko sax lañ koy dindee mm. ak baxastu mooy luqi naa génne naa muqlatahu nagu batam moom itam saat lañ koy bindee dégg nga moom nga dégg nga génne naa dégg nga wa haadi lii fursatun màng la mooy hmm. occasion pour def dara hmm. fursa saat lañ koy bindee xat hmm. pour ne dat loxalees na min wu ci moom alfarisatu saatu si xol del xawari ngir ragal ngir doxati baatu farisa saat lañ koy bindee wa qasartu ak qasartu bii fi ne tëj ay xabastu tëj ko laa ko xasru bi dafiri xabs mm-hmm. aw lu ci saat lañ koy jege na fisub nasara fisub nasara baatu fisub yi saat lañ koy bindee mm-hmm. wa wa moom fisub xeetun xeet la mm-hmm. mun tabar gëre guñ muñande ko ci feeti nasara nii la sama xam mooy pante kotas bi ay woon naa bokkul ak nouvelle la hmm. ne pante kot de su fekkee fàtte mu wala hmm. yàlla na mu la ko seen bir ba ñu pante kot hmm. wala képp ne ci seen diine ji da ko xam wala ko jàng dem seen téere yi da ko xam ay woon naa moom dégg nga waxarastu mooy doom naa ko mooy danga ko nekk di bët nii di ko ñëpp di teel a bokk ci mm. wal xamru sàngara si xarisatun aji sacc la mm. isa hadat bu bee allisaana la min wi e wa kullu hada képp yii daal mustatab lu fa qaala muallim bi dal de wax loolu ñaal ku ne ko raaje yàlla yàlla sàmm sàmm la ka ñaal la e yaa ko ne yow sama ndaw e fala xataxaat sa dal nga sama ñaari bi te nu yàlla sàmm parce que kontaan nga moom baax na iman la kaana li nabiyin ay yoxal la ngay jàng ci alquran su ma naadaa topp mu xoot xaar moom góor gi de ne aw de leeralal yaa yaasin xëy na xale bi la maa li nga xam ne yuskilu dana lënt min dawaati siini ci bara bara boromi siini baat yi nga xam ne siin lañ leen war a bindee muhmala mm. te mën a nax ñenn ñi mm. moom laa bëgg nga leeral mm. xale bi mu loolu la ko wax fa naxaa daf ku nekk buur walam yetta an na te yéexul gune gi buur amul def ndànk amul yéexantalu waam sadda mu sadda moom gune gi bi sawtin ci baat alam na bu daa ji neexantal muy wéyee ci baat bu neex mu ne niqsu dawaati warusul kappi musbatatun sinahuma inhuma xuttaaw in durisa wa hakada siinu fi qasbin wa basiqatin wasafi walbaxsi waqsir waqtabis qabasa wa fi taqasastu billaylil kalaama wa fi musaytarin wa samusin wa taxit jarasa wa fi qarisin wa bardin qarisin fa xutir sawaba minni wa kun lil ilmi muqtabisa mu ne niqu suddawaati baatam niqu suddawaati biri biri coskal baatam niqs bile wa rasxul kaffi ak rusxu bii fii takku njara takku njara ténk ñaari baat yile musbatatun lu ñu saxal la siinahuma seen ñaari siin in huma bu bindee feneen ñoom ñaar nga firi ale ko taa wa in durisa ak bu jàngee fatle mu baatal niqsu bi defiri mm. coskaal daal mm. sàllaw siin rek lañ ko war a bindi mm. baatal rasku bi firi takku njar siin rek la war a doon moom lañ ko war a bind moom lañ ko war a jàng waxaa kadaa naka noonu asiinu siin fii xasbin ci baatu xasbu mooy tàndarma joo wow baat bii siin rek lañ koy bindi moom lañ koy jànge itam mm. basiqatin ak basiqa mm. mooy garab goo gudd mm. tàndarma goo gudd wa nax la basiqatin moom itam siin a ci ne de moom lañ caa bind e moom lañ caa jàng wa safi ak safi bi fi ron doj suuf doj moo dem siin lañ koy bindee moom lañ koy jàngee hmm. wal baxsi hmm. hmm. ak baxsi bii firi njëg gu mangi bisamanin baxsin waqasir ak yaqasir bii firi notal xasu noteel ak lu ca baxoo waxtabis na nga juumu xabasan juum ak ixtabasaat lu ca xare yëpp seen lañ koy bindee wa bi taqasastu a ci xasastu bi firi déglu naa hmm. bi layli ci guddi hmm. alkalaama wax ji hmm. dégg baat ci guddi taxaw di ko déglu déglu settantal moo tudd taqasus taqasasa bi fii rek lañ koy bindee mooy raj naa wa fii musay tërin ak musay tër bii firi aji commandé aji xelif aji dominé nga dem siin lañ koy bindee mm. wa samoosin ak samoos bii firi fasu faraw mm. siinam gu mujj googu siin mm. rek lañ koy bindee xam lañ koy jàngee itam watta xis na nga jàpp jarasam jóolooli mooy xeet walla walla baatu jaras loolu la dana am ci bunte église yi bunte école yu mag yi yëpp siin boobu lañ koy bindee fi xariisin mm. ak fi xariis bi fi ne aji way mm. moom itam siin lañ koy bindee de mm. wa bardin ak sedd xaarisin bu daaje xar ci tàng boobu de salaw siin lañ koy bindee <coughs> dégg nga siin lañ koy bindee fokus jàppal ak sawaaba njub min nii ci mm. lii ma la wax sawaab la jàpp ji mm. kon te nga nekk mm. muktabisan daa ji mi xam-xam fa qaala muallim bi dal di wax góor gi wax la wa ñaal gune gi ne ko ahsanta rafetal nga yaa nu xayis mooy yow ku bëri yëngatu naxsaan mooy yëngatu ci barabam dégg nga xëy na ku nekk te seen jëmm muy ab gune boo xam ne kal sax te mu ngi mel ni jaage mu gune gu sawar bu mel ni liccin bu ndaw boobu dégg nga wanax ak yëngatu mu ne gune gu am yëngatu ka saw sax am na itam ñu ne moom it xeetu jaage la waa amara woo mu digal ko hmm. yaa yaqifa ci bu mu taxawat hmm. bin mirfaadi ci fugluwaay hmm. te bu loo genn gune na ngay wax taxawal fu la ñëpp di gis wayas wada mu toflante maa li nga xam ne yëg dana mu daw ala siini ci siin wasfaati ak saa baa di nga xam ne bu la nga génne leen bind leen muy si baa nga génne leen da leen muy saar wana xaada mu buur yas xabu mbirom dana mu diri mm. bur day hi ñaari mbubam mm. su maam sada topp mu sadd mm. mu sirante aji junjee biye day hi ci ñaari loxo mu buur nag de wéy lii in siita bisiini mm. faktub ma ubayyinuhu mm. wa in tasafawa bi saadaati yuktasabu maasun mm. wa faqasun wa mustaarun wa mummalisun wa saalixun wa siraatul xaqi wa saqabu wa saamiraani wa saqrun wa sawiiqu wa mis laaqun wa an kulli haada tufsihul kutubu in siita boo soobee fakk tub na ngay bindee maa li nga xam ne ubayyinu hoo danaa ko biral bi siini ci siin wa in boo soobee fo huwa moom li may biral si nii yuktata bu def na ko bindee bi saadaati jarisa man lay joxi baat ci kanam yoo xam ne buñ ci mën fa fekk siin gi bu la neexee nga def fasaad mm. ba ca njëkk mooy maxsu mm. bii firi méttitu biir xel mu mm. baax a baax siinam googu dañ ko def bindee saat wa faqasu faqasu mooy toj nen génn la ca biir siinam googu dañ koy bindee siin di ko bindee itam saat ak mustaarun bi firi aji sàcc hmm. wala aji for hmm. siinam gi dañ ko windee siin hmm. dañ ko windee saar mum malisun ak mum malisun bi firi aji rëcc ngëb dara mu rëcc la siinam gi dañ ko windee siin dañ ko de windee saar yëpp nangu na ko dégg nga wa ak saalih selungu ba abaa mooy mooy bi nga xam ne àgg na ci sax bañ ba dajal muy ci nag bi muy ci gàtt bi muy ci yàmb bi yëpp dégg nga dégg nga siraatul xaqi ak yoonu dëgg baatu siraat bi firi yoon mooy tam dañ ko bind siin dañ ko bind saat loo ci def rek baax na wasaqabu alsaqab bii firi jegeñ dañ mm. ko bindee siin dañ mm. ko bindee saa mm. wasaamexaani ak baatu assaamexaani bi de firi ñaari wàlli gémmiñ dañ ko bindee siin bindee ko saa wasaqrun ak saqru bii firi jaage dañ ko bindee siin bindee ko saa wasawiiqu ak sawiiq aw ñam la ci toggi arab yi dañ ko bindee siin di ko bindee saar mm-hmm. wa mislaqun ak mislaq bi firi ku bëri wax mm-hmm. salaqookum bi asinatin xidaad mm-hmm. mislaq muy ku bëri wax wa tubsiru dana wóoral al kutubu téere yi an kulli hada ci lépp lii baat yi ma wax la ne la tuktabu bi siine aw bi saadi ala taxyiri baynahuma téere luwa boo dem rek loolu mm. nga mm. ca fekk fa qaala gune gi nee ko mm. ahsanta rafetal yaa habbaqa a nit ku tuuti moom la ñuy habbaqa xen bu baax a baax wala ku ñu wax ne dafa tuuti yaa ayna baqata yow bëta ba xam mooy yoo hmm. xam nga bët ba tuuti na hmm. kon gune ku tuuti la wawee hmm. noonu la kañee gune gi su ma mu dellu xoote haat ne yaa daxa fal loolu la tuddee gune tanu baax a baax mooy mooy doomu ñay waaw mooy sëllu ñay dégg nga loolu lay firi yaa aba sanfal mm. yaa abu sanfal xamuñ mm. ci waxi arab ko tudd sanfal mm. su mayee sanfal boobu dëkkoon arab la na foofu ci bokkoon ci fuqaay makkata te doon sukkandi fuqaay léegi dañu wax nju mu ummu nii la wootee fala baaw xëyu ko fatan aka gune ahsana gu gën a rafet min baydatin ci nen a baa fi rawdatin ci dër mu ne gu rafet xaw nuyu ko ne fay xëyu ko fa qaala mu wax la ko mu ne ko maa ana lan xaqdu hijail afali mooy xaqdu hiji ay feel allati feel yi nga xam ne axiruha seen muy xarfu waxti laa leen xaraf mais su fekkee dafa ràgg mu ñuy jàng liif ca kanam léeg-léeg dafay demee noo xam ne liif gu dog lañ koy bindee ne gën na jaar ak lu ni daha ak lu ni maha léeg mu demee noo xam ne yanara lañ koy bindee ne ki rama ak lu mel ni anta ak lu mel ni adana yooyu ana nuñ koy xam maa àndal na àqadu rijaayin afaal mm. mooy àqadu riji ay fexeel mm. allati fexeel yi nga xam ne mm. axiruhaa seen mujj xarfu ixtilaalin xarfu ràgg la fa qaala gone gi wax ne ko isma déggal laa summa yàlla bu taxalee sadaka sahu baat wala samiata yàlla bu dégg xedaka say noonu nu ko déggal su maan sada topp mu sadd ba ma sar sadate hutut ku ko gindi mu commencé woy ne idal fi'lu yawman umma anka hijaabuhu faaliq bihi ta alxitaabi wala taqi fa in tara qabla taa'i yaa'an fa katbuhu bi yaa'in wa illaa fa huwa yuktabu bil alif wala taxsab alfi'la athulaasiya walladi ta'addaahu walmahmuusa fi daaka yaxtalif idal fi'lu boo xamee ne fi'l hmm. xumma niisalees na han ka jeew hija oo hijim yow man bis fi'l hmm. boo ko fekkee muy mutalul aaxir hmm. te xamula liif nga war a bind ci catam wala yaa nga war a bind ci catam mu ne faal xeq na nga héegal bi hii ci moom taal xitaabi taag waxante dag jee def taawul faay wala ta xifti bul taaw soo defee tawul faayel mm. benn xarafu ràgg bi ci cat li dana génn de waaw mm. wala mu génn de yaa mm. fa in tara boo gisee xabla taa yi ca njëkk taa gi yaa an yaa bu oo bindam bi yaa in aji nekk la ci bi nga indee tawul faayel taa gi yaa ko jiitu kon soo koy bind yan na nga koy bindee ni ki rama da nga naan ramayitu taagiya jiitu ko kon yéen arab nga koy bindee lu mel ni nawa danga naan nawaytu mm. taagiya jiitu ko kon yéen arab nga koy bindee lu mel ni ata danga naan ataytu mm. taagiya jiitu ko kon yéen arab nga koy bindee lu mel ni adana jege ñal na adana itu ngay wax mm. jege ñal na su ko defee taagiya jiitu ko kon yéen arab nga koy bindee la laa boo gisul na nag ndax nga xam ne waaw nga gis ni ki saxawutu jamañ naa wala saxawutu xeri naa wala daxawutu xoote naa wala danawutu jege naa wala maxawutu yëpp taagi waaw ngay gis ci gannaaw bu dee loolu foofu yub ta bu dem na ko bindee bil alif kon danaa lif gu dog saxaa lif gu dog maxaa lif gu dina amul sulaasi hmm. amul lu ëpp sulaasi hmm. amul bi am hamsa hmm. amul bi ko amul li daal muy jaww lafaal allati axiruha harfu ictilaal wadan wala taxsib bul jort al fiala fiil a sulaasi a jëy sulaasi walladi ak li nga xam ne taaddaw jàggati na sulaasi romb na ko wal mahmuus ak mahmuus bu ko jort yaxtalifu muy wuute bi sàgg ci loolu mu ne fa tariba daal di bég ak seexu góor gi li mm. maa ngir li nga xam ne addaahu gune gi joxe na mm. su mahawadahoo topp mu defal ko musluwaay mm. wa faddaahu te mu jot ko su ma xaal topp mu ne halumma kaay yaa xaaxaa noonu la xooyee kile dan waawa xaaxaa dangay doo turu nit te xaaxaa du ci cosaan mooy baati ngànnaay ci xare mm. yaa baaqiatal biqaa yow njuumul bàkk yi mm. noonu la xooyee gune gi mm. fa aqbala jublu si fatan gune ahsanu bu gën a rafet min naaril xiraaj ci bëtëb nganale fi aynim ni suraaj ci doomi borom doomi rañaan ci bëtëb doomi rañaan kuy rañaan fa qaala mu wax la ko mu ne ko isda wóoralal mooy gune ku kéel gi li tam yi si raay ci biir azaan min adaati ci daal saa taaju tay ak laat dañoo jegeante max rek bari ñu leen di jaawale jaawale googu dem ba ci baat yoo xam ñeen ñi dañ koy jaawale nu ngeen di fi jàngale boo xam ne jaawale du ci amati li tax ngir na nga tojee bi ci moom mm. ak baat ak adaati rosi resi noon yi pour mm. ku la bañ mer ba dee mm. wa tasamu jaayu li qawlihi ngir waxam wa tasamu tàllal xara kanam maa sada topp mu saddee bi sawtin ci baat aja sabuda aja xiir mu commencé woy da woye ban bu xiir ne ayuha saili ani daadi wa daili kay la tudillahu l alfaadu inna inna hibda daati yuxnika fasmaa astimaa amri in lahu istiqaadu hiya ramya wal mazalim wal idlam wa zalm wa ruba wal lahab wal ada wa zalim wa dal wa shaydan wa zill wa lada wa suwad wa tawanni wal labd wa nazm wa taqrid wal qayd wa zama wal lamad wan jangara ayuha saili ayu ajalay sama ane baadi ci baat wa daay ak baat li kay la tudilla wa ngir bu dee dëkku réer alal faatu yi yow mi ngir bu dee dëkku réeral yow mi xam ne bëggoo yi di la kam fata nga de laajte yan baat lañ war a génne muy da ci bu ñuy bind ak bu ñuy jàng ak yan baat lañ war a génne ala ci bu ñuy bind ak bu ñuy jàng mu ne inna hiba saati naka mokkal saa yi yow ni ka danga la buñ la wane yi war a génn di taaju tooy rek dañ ca xamee ne yeneen ya def daat la ñu wasuma xaar danga leen dégg istima am riin dégg ak waay xam ne loo ñaal na ko itti xaadun xeew kon nañ ko dégg déggul bari taay dégg nga yee ñoom yooyu mooy baaxaat yi pour nga xam leen dégg yéen yooyu te mooy saa di taaju toy ram mm. yaahu mm. mooy ram yaahu mm. bi bi aja xonq dégg nga te mu mel ne lu ne xonq bu jëm ci lax noonu jirane wala nu muy mel noonu wal mazaali moom mooy tooñaange yi mooy zulmu ak lu ci xare wal idlaamu ak yi bépp baal buñ la wax mbaa muy fenel mm. lay na jamono saa lay génnee mm. moom ak la jàqare ñoo ko bokk mm. ak islam lëndëm mooy zulmatoog lu jàqare ak zalmo bii firi jaalu yàlla ca la bokk saa lay génnee suba ak suba bii firi ñëw kay jaasi saa lay génnee wa ak lihaas bii firi gindeeku rox rox rox gendeeku mooy tam saa lay binde saa wala xadaa yaakaar yaakaar naa xeetu humka la mm. dégg nga mm. wala xadaa jamu la mm. wazalim ak zalim bi fi kuyel baa wazab yu ak zab yu bi fi koj biir wa saydamu ak saydam bi fi fasu naaru góor wa dillu ak dillu bi fi kar wa lada ak lada bi fi tàkk-tàkk safara wa suwaatu ak suwaat bi fi tàkk-tàkk safara wa tawanni ak tawanni bi biri njort mooy zannu ak lu ci xare mm. wa lafdu ak lafdu mm. ak lu ci bàyyee ko alfaal mm. wa nazmu ak nazmu ak lu ci ak taqriir taqriir mooy tagg woo xam ne ki ngay tagg mu ngi dund dégg nga ak qaydu bi biri tàngoor wa zama ak zama bi biri mar wa lihaaf ak lihaaf bi biri gendeeku yëpp ay baat la yoo xam ne taa rek lañu dikkee hmm. ñu dikkee lu muy taa hmm. wa taban ni rek aade ah, noonu tolle wallama waaw wasama wallama bu mooy tokkar me ko waaw baax na ko ndongar la bu ànd ak bisam mm. buñ ci àggee nga doxal ko mm. mooy wasifa mm. ak mu wasif aji tëqoo waasaba ak kibatu fër mooy regg ba ak lu mel ni al intibaar mooy muñandiku intabara ak al ilbaab mooy tëqoo alaba bi kaba mooy tëqoo na ko alido ikram mm. yaakaar naa dikk na jaar ci moom mm, mm. wa wasifun wasif mooy cokkotom ci tànku ba lay nekk wa zalima ak zalim bii fi aji soox dalmo wa azim ak azim bii fi aji màgg wa zahir zahir mooy ndimbal wal fadlu ak fadlu bii fi ku naqarder ku bon xol wal ixlaas ak yàlla biir bi talal jafeel yëpp ay baat la yoo xam ne ñoom ak seeni usal yëpp baat lañ leen a séddee wa nadif ak set nabaata wa barfu ak barfu mooy nite mm. wa balafu ak er gore mm. a bahiru ak bahir biir er bi aji summal fasiya topp fasiya bi fi aji ñaaw. wal waat ak waat li fi ay way waate. yëpp daal lañ leen a déglu. wankaatun ak wankaata. bi ñu xamoon. wasaanu ak wasaanu bii firi laxas. moom itam faa lañ koy bindee. wal mazzu xeeturu la. Mm. wal hamzal qatar la. Mm. wal qaaribaani mm-hmm. mooy ñaar ñu wuti woon xaltu mm-hmm. ñu dem te dasuñ mm-hmm. wal awsaaf te am ay mbooloo yu jaxaso yëpp baa lañ koy bindee wasiraabu wasiraabu sirraani wasiraabu sirraani dana baax mooy tundi xàlli doj yi baatu siraab bi sabab mooy xatak dund mm. albahid mooy aji diis mm. mooy njëggu sayar bu jafe ci mm. jëndante bay samanun bay wal jaatariyu mooy ko bon jikko kuy doxee lum yorul dégg wal jawaab ak jawaab Mm. ahlu naari kullu jaabariyin jawaab mm. yaakaar naa ñëw na caati mm. mu ne ñaari jikko lañ yoo xam nit ak safara moo leen di jikkoo wal jaabariyu mooy ku rëylu lu mu amul al jawaab mooy faajoor kaccoor wa sarabiil ak ay sirbaan mooy wexeñ wal Mm-hmm. ak xanaa di bibre ay góori njéeréer mm-hmm. dégg xum jóg Sakarul mm-hmm. Xanaas eh? ah Sakarul Xanaas <coughs> wal Hondu mooy góoru njéeréer njéeréer ak góor yëpp de faa lañ koy bindee mm. gis nga ko baaba mm. wasara diinu ak ay sërbaan mm. ah gis naa ko may ay wexeñ wal xanaati bu ak góor ak góor ñaam xanaati wal xontu mooy góor ak baan summa sayyaan sayyaan xeetu gàncax la wal araaf ak ay lox saatu mooy lox jërë mm. nga baax a baax. waaw loolu foog naa ne moo leen loxo de. loolu léegi nag gis nga. Mm. dama doon dégg loolu de. Mm, ah. maa ngi xool naa si si sànq. ah. maa ngi xool naa si si sànq. ah raxas bu wal arab nga ne mooy madxalu nasli fi sër. mooy bi bala fett de dugg ci fett mooy cox la. muy coxka mm-hmm. mm-hmm. ah. mm. mm. mm. dégg nga gis nga ko mooy fi ñuy saxee dégg nga wasana wasana bi ndax du loola ci tegu mooy wàlli doj wa dalzu dalzu mooy jañ yo wa dalsu ak baat dalsu mooy jeng mm. wa da'bu mooy coow mm. dina ko baax mm. a baax asab daal xeetu jàngoro la xamal jàngoro yi lan la dégg nga dina ko jàngoro la nga ko lim aytu asaara ka say jeexit alufaazu way mokkali mu ne nii la toll waqadi na nga xaate bii maa ci li nga xam ne sarafta soppan nga ko min haaji kama taqdihi ni nga ko xaatee fi asli ci cosaanam mu ne baat bu ci ne bu ñëwee tas yi la ca xaree moom mu ni ki xëy sin tàngoor ak xaatu dina la xam naa ay baat yu des. kon nag moo xam bu ko doon bindee ñu mën a ñaan nga ñu ko ko bind yaa daan dem ñu ko wéyaloon waaye dama fàtte wuy ñu ndax dama jigéen. Hmm. xam naa baatu faydu ci la bokk. Hmm. faydu mooy dee. saa hmm. lañ koy bindee. ak itam yaakaar naa nasu. nasu nasu. ci la bokk. ak xasu. ci kaw laa ne gis nga ko ci kaw laa ne Ooh, what happened? Nobody did it. mu ne leen indi saa yi. Mm. fa qaala daal di wax loo ñaar ko aseexu ah góor gi. Mm. góor gi ne ko ahsan dara rafetal nga. Mm. waaw man ma xaw bi bi mu yore yaa bu indi naa ko bi amee woon naa ko bi ma doon jàngee ma xaw sama ma xaw ma doon jàngee ma xaw. bi jógee yaa gudd indi woon naa ko ci téere bi indi woon naa la bokkoon. fa qaala daal di wax loo ñaar ko aseexu. Ah góor gi ne ko ahsan dara rafetal nga laa fudda yàlla bu fa gees foo ko sa gémmiñ wala burra yàlla bu jekkale man koo xam ne foo ko mu la ya dana mu la beccingal ku la bom fuddal yàlla bu ko kenn ko wallahi giñ naa ci yàlla innaka yow la ahfadu yaa daqa wattu yaa daqa dajale yaa daqa mokkal mais al ardi ci maa si baax ànd ak ndaw alxaddi bu daa ji na sax gën a mën a dajale min yow mi naa ci bisu penc mm. bis penc mm. yow li nga mën a dajale ci sa xel bis penc dajale li mm. nga mën a gàtte su si mënu ko gàtte innaka yow maa si baax ànd ak ndaw alxaddi bu daa ji na gën a mën a mokkal mi naa ci suuf si waa ñu ma tee gën a dajale min yow mi naa ci bisu gaaral <coughs> wala xat awratuka rotal naa la rootal naa la hmm. waru xatak ak sa sette bi hmm. zulaali suma ndoxam zulaal suma ndox mu sell hmm. sama xam-xam bu leer bi dénk naa la ko yow ak sa bokki taalibe yi wasaqaftukum bëj naa leen jubandi naa leen tasqifan awali kem bëjëg ay guntu dem na ci yéen saqaama hmm. yar naa leen ba ngeen nite hmm. génne leen ci njubari hmm. yóbbu leen ci njub ni yore bant bu dëng tey bëgg mu parce ko leen ma askur kum may leen ko kon nag ngeen li ma def ci ko defee seen njëriñ ci man de yokku te ngeen sant lii ñaal ma itam ngeen sant ma ndax cant mooy wala takkuroon te bu leen mu ngi ah lal Haaris ibnu Hammaam tuuti rek moo def Haaris nee na fa ajibtu ma yéemu li ma ci li nga xam ne ab daa feeñal na ko min baraatin ci kowe ci fasaha maa joonatin bëri bu ñu laajte bëri bu ñu jaxasee bi rek xaasin ci ndox melokaanu dox bi ak xam-xam yu kii yi bi indi. Hmm. waa xaaral li mu feeñal min hadaqatin ci ñaw. Hmm. moom soo jëlee gërëm gu ñuy jaxasee bi hamaqatin ci ndox. Hmm. ndax amul ñor ak waaye gu nii niñ tudd sax. <laughs> waaye nag daal ku ci wax rek. lu doy kéemaan. walam yasal dañul basari sama gis yu saa yi du dee yéegaan fii ci moom. wayu sawi bu te muy wàcci wàccaan wayu na xiru te muy gëstu an wu ci moom wayu na xibu te muy ko gëstu waaye wa kuntu nekk naa kaman di mel ni koo xam ne yanzuru dana mu xool fii zalmaa ci guddi gu lëndam awee fii wala dana rañaan fii ba maa ci guddi gu lëndam ba te guddi gu ñuul mu ne may ko xool rek waaye xam ñu ko tam may ko xool rek fastaraasa muy yéexlu mm. ah loolu tuuti rek moo leer tuuti rek moo leer maa ngi jàng loolu wala mu yasal ba dañul basar yi sama gis yu sami bu de wàcc wàccaan fii ci moom yu saxee du te muy yéeg yéegaat mm. waaye wa kontu nekk naa kaman di mel ni koo xam ne yam suru dana mu xool fii dal maa ci guddi gu lëndam aw yar lii wala dana la ñaan ci ba ma aji guddi gu la ne waaw ne ko indi bayaan indi bayaan ah sama xeebu bi mu mm. seetloo ne yéex naa koy xàmmi daal mm. wasabaana te mu birlu tadallu yi sama gëlëm mm. xam na ne daal fakk naa ko wala ma tarasa ba mu yéexloo sana guhi sama xeebu wasabaana te mu birlu tadallu yi sama ndox mooy sama gëlëm xam la xarogona ilay jëm ci ma dax ma rox wa tabassama te mu muuñ mu daal de muuñ wa qaala mu ne ah lam yabqa man yatawassam lam yabqa desatul man ko xam ne yatawassam dana set sa dal man na xale xel gi ci nit ñi loolu de ko mën a xam ne amatul loolu la wax waaw daal na xale xel gi ci nit de ko mën a xam ne amatul loolu la wax rek xam la xarogu na ilaya jëm ci man wa tabassama te mu muuñ wa qaala mu ne lam yabqa man ko xam ne yatawassam dana settantal mu ne babuutu ma xam li fahwa kalaamihi ci dëgg-dëggu waxam ma xam maanaam wajatu ma fekk ko aba zaydin muy abu zaydin inda bu tisaamihi ba muuñam ndeke borom gune yi abu seydin la ba muuñee laa ko xam wa mm. axattu ma qarat mm. aloomu woo de ko yedd mm. ci jàpp kër pàkka wuy dof yi ma ni ni mu yaaye nga di ci himsi gi xam ne dofi neen booy dëkk dëkk la nit ñi ci ay dafi kese ñofe faaxatu ma faaxatu ma xaraf di ko yedd hmm. ala tadayuri buqaati nawka ci hmm. jàpp kër pakkab way dox yi hmm. wa taxayur xirfatil hamqa ak tànn méccam way dox yi métti yi niñ bëri tànn lu xarit ne fa kaan na wajahu daanaka xar kanamam aussi fo sottees na ko hmm. ramadan doom hmm. aw usri fa walla nandalees na ko hmm. sawadan ñuulay mu ne ci saay selmayam soppeeku ba ma xam ne li ma ko wax neexu ba ma xam ne li ma ko wax neexu fa kaan na wajahu daanaka selmayam aussi fo sottees na ko mm. ramaadan doom mm. aw usriba walla nanda lees na ko mm. sawaadan ñuul illaa annahu ndare mu man sadda sadda na wa ma tamaada tërëyul waaye ñaari wuy yi la wax walla ñett mel ni tontu himsa wa haadi istinaa li urzaqa hudwata ahli raqaa ma yastafi dahru gayra raqiya wala yutin almaala illa biqaa wala li axi lubbi fi dahrihi siwa ma li aynin rabitin biqaa ne taxayatu tànn naa himsa man tànn naa himsa gi de waadi sinaata ak métti mii ma ne li wut raqa ngir na warta galeef ma xudu warta ahli raqaati xëy jug ñooñ ndof yi dofi yem sa yi bañu ma ba man bañu ma bokk ci ñoom waaye cër bi ànd ak seen ndof man bëgg naa dana ko baax a baax mën a xamal nit ñi te yàlla dimbale la ba sonn loo kenn te lu fekkee mooy ndof man naa doon li war saqa ngir na warta galeef mm. mm. mm. ma xul raqa xej jub ñooñ ndox yi fa ma yestafi du tànn addaru jamono xayra raqi andare ku wala yootinu du mu dëkkal moom jamono almaala halal illa bi xaawoo ndare tàkki koo dox ñi ñuy tuddee dox man ñoom rek ko man wala li axir lubbi mm. ñaalut borom xel mm. min dahri si ba ma dara loo xam ne mm. li ayrin ñaan na gélem rabitin wala ñaan na mbaam rabitin ma ne mu ñu xeew bi xamaatin ci pat nite goo ne dalaw dugg-dugg ba am loo lekk tey rek lekk boo lëgee nga def ba am loo lekk lekk rek loolu solo summa qaala topp mu ne ma amaa inna taalima xanaa du métier asraf sinaatin moo gën a tedd xanaa du xam lay asraf sinaatin moo gën a tedd ci métier yi xamuloo ne le moo gën ci métier yi ak xanam goo seetee nga ne ci diggante liggéey morom ma rek da nga fekk moo gën moo gën ci liggéey yi ak noo seetee nag ngëneel nag mm-hmm. ci liggéey ak morom mm-hmm. ñun xam nañ ne xel mooy asraf jawahiril insaan mm-hmm. yi dajee ba ki de li ci gën a foor mooy xel loolu ñu xam nañ su ko ñaari liggéey boo leen leeralee nga xool seeni suute mooy seeni jumtukaay man nga fekk ba gën sute mm. defi gën mm. loolu dañ ci seetee gën mm. léegi da nga leeral la ñaari liggéey nga xool seeni sute bi nga fekk ne sute moo gën mooy do liggéey bi gën masalan tey wax mbir la ñaw mbir la ndax du oh. léegi bëri wax yëfi làmmeñ la ñaw yëfi xel la te xel mooy asraf jawahiril insa hmm. kon suti bi ñëw di xamee hmm. moo gën suti bi bëri wax di xamee hmm. léegi ñëw ak bëri wax du ci gën ñëw a gën ñëw a gën loolu ku ne xam na ko sungu baax a ñaari liggéey da nga leen di seet bañ a xool sute ya waaye nga seet mujj ya ba mujjam xëpp njëriñ moo di gën tey kii dafay bay mm. kii amee wurus de tëgg ay takkaay mm. gis nga bi mm. liggéeyam bu paree njëriñ la ca mooy ñi man da ca waajoo baykat bi liggéeyam bu paree njëriñ la mooy ñi man cee dëgg dund dund moo gën a fade waaju seetlu wala ko ne dund moo gën a fade waaju ci loolu kon filaaxa Hmm. moo gën siyaaka hmm. loolu kon filaaxa hmm. moo gën siyaaka gis nga baax a baax nga jàngale boo koy defal nit jàngal boo koy defal nit texe nga koy fàggul te texe moo gën ci lu nit di kon ci wàllu njëriñ xamut ak benn liggéey xamut ak benn liggéey ba de ko defee dama lu ma jëloon bu ko dee jàngale xel mooy sute bi koy def ndax làmmiñ dana tudd baat hmm. waaye làmmiñ xam ak xel moo koy hmm. kon sute bi gën a foor ci lañ koy defee hmm. waaw sute bi tax ñaw gën bëri wax ci lañ koy defee ci wàllu sute bon moo gën ci te itam ñaari liggéey man nga leen leerale nga seet ci ñuy liggéeyee liggéeyukaay bi gën a do barabu teraanga mooy gën la ñooy liggéey ca lëggéeyukaay ba duut barabu teddaal masalan kii day tëgg liggéeyukaayam xaalis la wurus la kii day wuli der liggéeyukaayam ab der lay do bu xam ne dafay mel na naqare ji mu sonne ca bam tàlli yoo ne xaalis wurus ñoo gën a doon yi fi tiraanga wàllu der ci loolu kon mën nga siyaaxa moo gën di baaxa moo gën wuli der seetloo hmm. jàngale boo koy def barabu sa liggéey mooy xelam ki ngay jàngale hmm. te xel mooy asraf jawaahir insaan hmm. kon liggéey fu muy tegee moo gën fu liggéey yi tegee moo tax mu tag dara ñaar gëm ñàkk yem ak dara moo tax ñi tànnal ko mursaloona yi alayhimu salaatu de boo seetee ci wàllu suute biñ koy defee wala nga seet boo njëriñ li ci war a wala nga fekk ci koy def fi muy teg liggéeyam mm. yëpp da ngay fekk ne li ñuy taggee liggéey yëpp mm. daje na ci moom mm. loolu moo tax mooy asrafu sinaatin waar ba hu bidaatin te moo gën a bénéfice ci marchandise te itam moo moo gën a bénéfice ci marchandise ndax jaamu gula ëpp njëriñ ci biir jaam ñi googa moo la gën xayrun naasi anfaahum linnaasi mm. loolu hadis la mm. moo tax ñu jaamu gu la ëpp njëriñ ci jaam ñi googu mu la gën waan jëw safaatin mm. te mooy gën jaay faju xaaju yi tiinu lépp looy taxawoo nit ba mu jëriñu bu dul ko ba mel na mu war a ko ba mel na mu war a mel moo gën defal maa wahaba llaahu limri in hibatan anfaa min aqlihi wa min adabi wa ma hayatul fata fa in fuqida fa faqduhu lil hayati alyaqu bi wa afdalu baraatin mooy gën ci kowe warab bu woo boromam ki koy def soo imratin borom nguur la mutaatin gëde gu ñu topp soo ci nekkee te sax ci fokk sama borom la jox baat ci nit ba teen ak wegu musaatin gëre gu ñuy siiwal waraay yeteen ak caawa mooy ñu ñuy sàmm mit waatin ñay toppakoon yetta say saru dana commandé dafay dominé te tura mm. amirin mm. commandé buur mm. wa yurattibu dana mu toflante mm. tartiba mooy noose mbir mm. tartiba wasirin mm. nooseeg jaraaf ah liggéeyam moo ko jiite te moo koy tëral boppam dafa mel ni mooy amir bi mooy wasir waaw moo ko jiite te moo koy nooseel boppam waaye tahakkamu te dana mu xàtte tahakkuma qadirin xàtteeg aji man dëgg waaw waaw waaye te sa boobu dana mu niru. Mm-hmm. bisi mulkin ci borom nguur. Mm-hmm. kabirin guraaji mage. Mm-hmm. ndax baat bi muy am rek. illa annahu ndare moom nag. yaxrafu dana mu naat. fi amadin ci diir yasirin guraaji néew. waaye gaaw a naat nag. moom daja bëri. dem ba ca kanam nga yow ma fàtte. loolu moo tax haddis nga wax dafa laaj dafa laaj mokkal bu baax mm. soo dee mu haddis mm. soo demee ba mage mm. sag mokkal wàññeeku dañ laa wax ba ko jàngalee wayam baxil imsaaku imma xarifa waadima dabta bisin nin orifa wayam baxil imsaaku imma xarifa waa di ma dabta bi sinnin orifa comme ni nga ko jàngewoon ci talatul anwaar def na jàngoon ngeen ko foofu mu ne nit xam na foofu fa ak mageem xàggee xel mi naag suba dafa war a bàyyi na jàngale mu xam ne fa doon liggéey te yàlla kim doon liggéeyal wàcce na ko alimam Malik nag dem na ba am jëm ñaar fukki wéy di jàngale hadis boobu ko woon hmm. moom da daa innama yaxraful kasabun hmm. mu ne ku dul fenkan mën ngaa bañ a hmm. ah, naan jàngale boo xewarin fa doo dugg na ko ba bu jàngale ba pare fekk mu dundal. Hmm. waaye ñoo dem ba xam ne mënatu ko di ko dundal. Hmm. waaw ñoo dem ba xam ne mënatu ko di ko dundal. Hmm. waaw gisatul kenn rek noonu la demee. waaw xel bu baax la. ñu bàyyi jàngale ba feebar bi mu faatoo. feebar bi sonal na ko boobu toogee jàngale ba pare. pour mu dugg ci néew dañ ko yëkkati. te taxul ma bàyyi jàngale ñoo dem ba xam ne mënatu ko rek di ko dundal. di ko dundal waaw. loolu jàngale bu jotee. bu fekkee ne woon ne wax ne ba ñëw bu fekk kenn mu delluwaat ci ne. jigéen mënatul génn ba. waaw te mm. ¿eh? mm, mm. la bu baax a baax. man la demee rek. laa ne woon ndare moom. loolu ñun dañu ko nettali man góor yi xam si moom dara fàttali ko si moom dara ay loolu lañu wax. te lu baax a laa ne woon ndare moom. yaxra bu dana mu naag fi amadin ci diir ya diirin bu daa ji néew. gis nga bu baax a baax loolu bi wax na ma ko sax wéyal tasi mu te dana melloo. bi hum xin ci ndox sahirin gudaa ji siiw. te itam bañ leen a bàkkeelaal dox daal. wéyal taxal la bu dana mu jàllarbe ko. bi aqlin ci xeet sahirin mu daa ji ndawe. yu ne bii kadu la xamal mislu xabir kéem a ji xam daanaka daway mel daal lu dul liñ seq jàngkat yi. Mm. duñ ko de xaw a mën xam. Xaarim ne fa qultu ma wax la ma ne ko tallaahi giñ naa ci yàlla. innaka yow labnul ayyaami ay doomi fan yi. yalal fas fas fas fas tunga rek. tawran yamani ida ma la ida laqitu sa yamani. wa in laqitu ma addiyan fa adnani. ma daal fas fas du la bi gis rek. tawran yamani. ida laqitu sa yamani. wa in laqitu ma addiyan fa adnani su ma dajeeg yamani da nga foog ne yaman la dëkk de waaye su ma dajeeg ma addi yi de nga foog ne ci feti adnani la bokk rek ma daal loolu laa jëndal wa alamul alam tey alama alam yi ñu fee def roy téer yaay seen ginde koo kaay wa saahiru yaay njeebeer kat mooy ko am fasahatul lisan allah bu courage waaye bi la xam ci dégg yi almudallal kare ku ñu mokkal mooy kare ñu tàggatal la way ñaal ko subulul kalam yoon yoon summa topp asal dañu ma moo tekki fan daaji sax binaa diihi ci pénjam wa muxtari fan te daaji tànk min sayri waa diihi ci yoon de waxuram booba nan laa toog nag ci pénc ci barabam toog na waaw di déglu ay waxam mm. ilaa mbaabat ba fàddu mm. ak yam fan yi mm. alxurru yu de way rafet wanaa ba te jot taab si muy huutu alxadaatu xew xew yi alxurru yu de way fëñ ba mel ni daal àndoo la fam war a xam ah, war a xam xam nañ ko wu ma tàggoog moom. wali ay ni te ñaan la sama bët alam lu rongañ. baax na ko ba ne bayaan bayaan. hatta dal di dañ ñu ne jëloon naa bun bay. hatta di toog mu ne jëloon naa bun bay. mooy koo xam ne bu la jamono màttee. Hmm. donte bañam mooy dina hmm. tey bu dara dalee nit hmm. mooy taxaw xettali ko donte muy mujj yi coono donte donte la sax moom dara ko cay demee mu dagg di ci bañam fanaat sa si peeg mu naa bu bañ jadirul layla nga mën ci koo xam ne labba xelu hmm. wa fatana te mu hmm. wa qaruba ak képp bu jege hmm. wa satana ak képp bu sori xëy ci ku an asana ba mu toroxlu la nga xariyaay samanin ñaar sangam jamono ba jaabiri saminin te ji jàng aji wér ki la tey mooy borom Mm-hmm. mooy faj xob yi mm-hmm. ko war a nangu leen mm-hmm. waaw lu xëy la ci képp koo xam ne labba xelu na wa fattana te mu xelu e wa qaruba ak képp ku jege wasatana ak képp ku sori an adana bu mu toroxlu la le xariyaay zamanin ñaar sangab jamono wajaabili zamanin saminin seraaj yi jàng ajoo mutara bi ha waxtu wam naam fee sadee libaani reenu aw so ay sow xursala mm-hmm. jagaleef ko bi mm-hmm. ifadati tatani yi mm-hmm. ci bëbbal mayam gudaa ji dotte ba mu xammee booba tey jëriñu ne muy mbiram naasa yëkkati de yàgg nañu sukkali de wa faraja yëral na de yàgg naa xettali wa dafara yàgg naa dimbalante de faa xaja mu bégloo wa nafara yàgg naay damuwante Mm-hmm. faana de mu tiitloo lottuloo kam noonu damante mm-hmm. ba faate mu dellu bi mm-hmm. xaqin ci dëgg ab la juraaji rafet ku mos a damante moo lay gañe te la may wax yëpp nag dëgg lay def aatama ko sonnal na de man ñi nga xam ne sa yélee xees nañ koy méngi xam nga ki ma yërëm mooy ki ko bëgg wutu kër la ku la yërëm mm-hmm. adama sonal na man ñi nga xam ne mm-hmm. séyéli xes nañ koy béng de mm-hmm. wa qurida taggees na ko il hut sa bëgg sa meesee ko wa buniya te na tox futewu nag buñ jëlee ci moom dara boobu lay gën a man yëmi nguura wa tawwaja ndëppalee na mooy rafetalee na sifaatihi ay meloom bi xubbi ofaatihi ci sopp ay wéy xaar Mm-hmm. nit la koo xam ne képp képp kuy xaar mm-hmm. daf lay yaatal mm-hmm. képp kuy garam daf lay yaatal wa taw waje rafetale ndëppalee sifaati ay meloom bi xubbi am xefaati yi xefaati yi ci sa kuy xaar falaa xalaata ba jetin yam taddu zillu xisbi fa innahu barrun biman anasa daw a suubi zaana masaya barfihi bi lubsi xawfi rabbihi falaa xala yàlla bu mu dañ moom abiru tuusa sayiduna saba jetin de boronta yam taddu di tàllalu adin lu xis bi kerag naataango fa innahu naka moom barun koo baax la bi man ci ko xam ne ana yëg na mu dawa suubi leer ak ay jimam saana rafetalee na mu mm-hmm. masaya farfihi ngëneeli ñawam bi mm-hmm. lu si xaw bi rabbihi mm-hmm. si xoo doo ragal borom bim nitee da di ko ragal yàlla moo tax niteem dafa ci dara lu ñaw saana rafetalee na masaya farfihi maya ñum ak ñawam la bi si xaw bi rabbihi si xoo doo ragal faliyeni na ndokkuloo sayidana suñu sang mm-hmm. faw soo wa texe am bi ma faxira ci ay ndam ta yooyu cosaanu nañu mm-hmm. wa jëllat te ñu mm-hmm. ay ndam yu cosaanu te rek la am wa fawtuhu ak jiitu mooy raw gum rawee ñu bari be sanaayaa ci ay njekk tammat yooyu mat nañu wana mat te ñu tasaare ñu siibal baam wayu lay mu dana askanantoon qurba hadratihi jege péyam aw riqihi xettali jaamam bi haddin ci cër min watihi ci xejam moom nag yaakaar naa ku ko jege daal mm-hmm. te doo lu may jaamam mm-hmm. dana am lu mu la xejalee mm-hmm. loo xam ne yow dañ ci xettale ko borom leetar bi daal yaakaar naa ci moom loolu yu la imu dana haskananto qurba hadratihi jege peyu sayidina mhm. lu haskananta mu xawsu riqihi mhm. xettale jaamu bi ko bind leetar ni mhm. bi habdin ci cër min hudwatihi ci xeejam fa innahu naka moom gan gii dikk te lii du nat bin doomi sang la de ci ñoo baax la bokk wasari du jat bin ku ñu dàqi bee ko war la jagadi moo bëri lu muy waral moo ko jëlee fa mu dëkk de mm-hmm. wa jëriixu nuwabin mm-hmm. te jami xew-xewi jamono la mm-hmm. te dafa ay mbir yu ko dal yu diis te tegaloo asarat yuy jeexital la wa nazimu xalaida taaji nas ay ràngalay te say yarat yooyu dox nañu te katib mahir la shaayir mufliq la la koo xam ne da nga nangu ay maqaamaatam ah, da ko naw in jaasa bu fuuree mm-hmm. li xutbatin ngir xutba mm-hmm. fala yoojedu deefu fekk xailun aji waxle mm-hmm. wa summa xusun topp xusum nu sanhedata foofale samma ca foofa baqilun kem baqil ci la bind leetar bi e jàmbar mën naa xutba dégg nga fa fa wayin habbara wala fayin habbara ah ah ñe ñe baax a baax insha allah